waa dama ni am naa yaakaar ne le 10 benn date moo am bu xewlee Papa Ndiaye Thiou di sargal a Balde ak Eumeu Sène borom Pikine le 10 bu ci jugee day nekk tous les jours man Khadim Kane nag ah soriwuma maa ngi ci biir te chaque jour chaque fois chaque jour yi maa ngi ci biir Papa Ndiaye bi nga xam ne bis bi dafa tombé gerte gi ñor nanu ko mbaaxal mbaa ñu riij ko dege def ko ngalax ko ne buux jóg yéen ñu ñu wax ñu mooy ca jàkkaay gi adama ah, dama ni senegal nak laay wax senegal senegal njaay dañu nak bu rëy nak bëss bo xamanteni ni bëss bu mag la wa suñu xarit bo papa njaay di ci senegal euma sen suñu mbeur mu mag bobu di suñu xarit di sargal ay rakam tamit muy amam balde ak boy ñaa wa bëss bi nak mu nek bëss bo xam dañ ko fonk lool muy le 10 ci ca dama ni dakaru njaay senegal pikine ngeen lay waxal pare len bëss bi te xamne bëss bi du yombu Papa Ndiaye coo koy def di ci sargal Eumeu Sène Ama Baldé man maa ngi ci biir dama ni le 10 Travers bu ko kenn wuute man maa nga ca ba mu saf sàpp sàpp sàpp. waaw salaamaaleykum mbokk yi soo leen ma yor siwo bii xam lu mu def ñeexu cu te lii du ñeexu cuwu neen du cuwu neen de cuw bi Eumeu moo koy séddale Ama Baldé moo koy séddale Boy Niang moo koy séddale le 10 Travers ku nam mu cuuf fekk ma foofu ak Papa Ndiaye cuw ñu séddale siwo cuw ciy le 10 Travers du yomb de ciy cuw yi ciy cuw. cey ciw Papa Ndiaye di séddale ëmma di séddale ama di séddale Boy Niang di séddale Dame Sène di séddale ndaw ciw bu neex kii du ciwu como de Eumeu Sène Boy Niang ak Ama Baldé man Bril dinaa fa teew ànd ak Papa Ndiaye Thiou le 10 le 10 loolu du yomb au rabais du yomb de du yomb sama gars yi Bril la ngoog teew ndaanaan kuli fadri